Saourou Sène euh, la ñu dalal tey mooy secretaire général bu SAEMS SAEMS du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire maanaam ci ñi yëngu ci wàllu njàng mu suufe mi ak mu digg doomu mi euh, sëñ bi Sène ñu ngi lay nuyu mais maa ngi lay fay Fatou di ak yow euh, ginnaaw euh, waxtaan wu njëkk wi ci kàllaamay euh, nasaraan alors Saourou dañuy door fi nu dooree woon sànq muy njiitu réew mi Macky Sall mi daal di sant ay ministre am ki yore wàllu éducation nationale ak enseignement supérieur démb ci conseil des ministre ngir ñu woote waxtaan yoo xam ni yéen ñii di partenaires sociaux yi da ngeen cay bokk bu ko defee ngeen natt njeexital yi nga xam ni feebar bi di coronavirus am na ko ci njàng meek njàngale mi uh, woote googu yow en tant que syndicaliste uh, gan nopp nga ko déggee waaw euh, maa ngi ko lu positif loo xam ne lu baax la xëy na loolu mën na wane ni njiitu réew mi ak euh, son gouvernement am nañu préoccupation ci li nga xam ne mooy wàllu njàng ak njàngale hmm. euh, wax ni rek situation bi fu mu toll nii effectivement jar na waxtaan donte déjà mën nañ ko wax am na ay yenn mesures yi nga xam ne ministère de l'éducation commencé woon na di ko jël hmm. muy li jëm ci naka la def pour que xale même bu ñu toogee seen kër demuñu l'école mais ñu mën a jàng ci kër gi muy usage technique ak technologie euh, muy benn chaîne de télévision bi nga xam ne léegi ministère de l'éducation en rapport avec le ministère de la culture am na ko muy canal 20 bi mais mesure yooyu donte rafetlu nañ ko won nañ leen seeni limite limite yi mooy euh, d'abord ci ñi nga xam ne ñoo ko mën a jëfandikoo mooy ñu nekk ville mais loolu mënul nekk une trè bonne solution pour l'éducation parce que nag njàng ak njàngale dafa am euh, lenn loo xam ne daf ko laaj ci wàllu concentration mm-hmm. alors que loolu ni ñu gisee ñu ñuy seetaane télé ci kër yi mais loolu du favoriser un enseignement Euh, beneen aspect bi nga xam ne relevé nañ ko mooy que monde rural bi ñu dëkk ci kaw yi amuñu technologie boobu amuñu sax électricité donc euh, mesure yooyu bu ñu leen bëggee jàppale ci lu mel noonu il faut que ñu def ay fascicule hmm. wante loolu nag yëpp ñu wax euh, dàqul quand même volonté bi nga xam ne gis nañ ko parce que mbir mi mooy Covid dix neuf bi bu amee secteur bi nga xam ne dina jafe trop ci moom mooy le secteur de l'éducation l'éducation et de la formation donc euh, bu dee dafa am ay initiative yoo xam ne dañ koy jël de part et d'autre pour que xale yi bañ a fàtte lu ñu jàng mais loolu lu ñu rafetlu la lu ñuy accompagner la donc euh, je crois que li président wax ak conseil des ministres retenir ko mooy que ñu jëm ci ay waxtaan pour xool naka lañ mën a def daal pour jëmmal année bi malgré situation boobu alors euh, kon su ma la déggee mesures yi ministre bi jël mënta am njeexital bu am solo euh, ci njàng mi ndax ni nga ko waxee euh, kaw gi am na ci ñoo xam ne waxuma la internet waaye courant sax bala ñu caa jot jafe-jafe la même fii ci dakaar aussi am na ñoo xam ne amuñu accès ci internet bi kon yooyu mesure jàppoon ni mën na am njeexital gu am solo waaw xam nga ci situation bi ñu nekk nii dama jàpp nii dañu war a rester positif parce que dafay am situation bu muy toll ci réew ñëpp dañ ci war a jàpp pour xam ni euh, njëriñu réew mi rek moo am solo du njëriñu kenn euh, mesure yooyu dama relever limites yi maanaam c'est ni inefficacité dans une certaine mesure mais n'empêche nag il faut ñu louer volonté de faire parce que quoi qu'on dise aussi mais Covid bi comme ni ma ko waxee muy ñëw kenn te ñëpp la la la donc de mm-hmm. sorte que euh, situation yu particulière la ñu nekk kon ay mesures yu particulière la ñu mën a am mm-hmm. xam nga en général aussi euh, entre le le mal et le moindre je crois qu'il faudra prendre entre le mal et le pire il faut prendre le moindre mal mm-hmm. actuellement mesures yooyu ay mesures de de comment dirais-je de circonstance rek lañ mën a nekk ay mesures conjoncturelles rek lañ mën a nekk ay mesures yoo xam ne ku nekk dañ koy xool lan nga ci am lan nga ci mën a jëriñoo loolu je crois que biñ ko defee dafay am solo euh, c'est l'occasion aussi ma rafetlu quand même euh, comportement jàngalekat yi parce que gis ngeen ni déjà man dama ko remarqué jàngalekat yu bëri bien avant que ministère di xalaat naka la ñuy def mais ñoom gis nañ déjà ci seeni réseaux sociaux yi groupe WhatsApp ñu organiser entre eux ak seeni propres élèves surtout les classes d'examen mhm. commencé doon leen jox cours ñoom ñu ngi ñu ngi ci c'est pour renforcer la dynamique mais encore une fois de plus li xew moom du lu gën ci kenn du lu gën ci kenn et par conséquent mënul ñàkk ay ay ay ay jafe-jafe yu gën a gën a tar yooyu ni ñu ko xalaatee d'ailleurs. alors ba tey ci wàllu euh, njàng mi président euh, daal dinay wax itam ne nañu def euh, ab feuille de route boo xam ni xëy na dañu cee xool nu ñuy nattee évaluation yi examen yi ak concours yeeg yooyu feuille de route boobu naka la ñu ko war a tëggee ci sa xalaat. waaw je crois que li war njëkk ci feuille de route bi mooy ñu xool nag la ñuy def ba xel yi jàngaat. voilà parce que évaluation balaa nga koy wax day fekk nga am li nga évaluer. Mm. je crois que bu ñu xoolee matuwaay yu ñu mën a jël pour que ñëpp mën cee jot. pour que ñëpp mën cee jëriñu ñu nekk ci réew taax yi comme ñu nekk ci e, kaw gi mm. mais loolu buñ ko defee ba xool njëriñ li ba xool li muy jur ci élèves yi mm. mais à partir de ce moment dinañ mën a gën a toogaat pour xool nag ci lii ñu jot a liggéey nii mais naka lañ koy récolter en terme d'évaluation mm. parce que nag encore une fois de plus euh, tubaab dafay faral di wax ni euh, la pertinence de toute chose dépend de son opportunité aujourd'hui l'opportunité du évaluation bi opportunité bi mooy naka la ñuy def ba dugal dara d'abord ci boppu xale yi. Hmm. parce que même système bi ñu jël ni pour wax ni avec le net le WhatsApp tout tout toutes les mesures qui sont prises mais quoi qu'on dise du loolu mooy njàng ak njàngale parce que naka encore une fois de plus ñun en tant que pédagogue xam nañu bu baax a baax a baax lan ban ban ban médium wala ban canal lañu ñu mën a jël euh, xale def ci moom xam-xam donc loolu euh, lu ñu war a mën wax la. Eh, ci sa xalaat yow loolu ban canal la fan la ñu mën a jaar ba xale yi jàpp dara ci liñ leen di dégtal. <laughs> gis nga bu wax dëgg yoo xam te dëgg gis nga situation bi ñu nekk nii nañu ñaan yàlla. Euh, virus bi génn réew mi le plus mm. rapidement possible génn àdduna bi le plus rapidement possible première chose deuxième chose le temps que loolu am ne nit ñi respecter ay mesures yi nga xam ne état bi mu ngi koy jël surtout que moment bi nga xam ne dañuy gis ni taa communautaire yi lu ngi bëri mm. loolu mooy musiba bi et wax ni euh, à partir de ce moment il faut que gouvernement bi du moment que jël na ay mesures sociale jàppale nit ñi na ci dolli ay mesures restrictives comme bi ñu xool d'ici une semaine naka la ñuy régler les cas communautaires parce que nag la finalité de tout ça c'est que bu ñu bëggee aider école bi mu reprendre correctement il faut que virus bi jóge fi virus bi tant que mu ngi fi même boo amee initiative delloowaat xale yi dans une certaine mesure parents yi sax dañ ko dul nangu de sorte que daal man hmm. noonu dama jàpp mesure forte bi waaw mooy que ñu jël des mesures restrictives pour que nit ñi toog ça c'est évident mm. maintenant pour revenir à à l'éducation nationale comme ni nga ko waxee mm. noonu euh, en tout cas de toute façon euh, li ñu jëlagul nii yëpp comme mesure c'est pas en réalité pour remplacer l'enseignement proprement dit ou le professeur dañuy ne naka la ñuy def ba xale yi duñu fàtte lu ñuy jànge mm. naka la ñuy def ba xale yi gën a rappelé wu ñu nekkuñu vacance situation mooy imposé wu comme ça mais dañu war a continuer di gëstu créer nag les conditions qui permettent à ce que jàngalekat yi aussi ñu mën a nekk en contact ak ces élèves là di progresser tout doucement le temps que virus bi jóge fi hmm. en tout cas ça c'est vraiment xalaat kon bala ñuy dem ci évaluation ak euh, yooyu euh, ci sa xalaat war nañu jàngaat euh, diir bu toll nan ndax bu ma la déggee mooy li ñu fi def nii yëpp mënta tax élèves yi jàpp dara dem ak ñoom toog ca classe yi mooy tax ñu mën a jàng gis nga wax ji yëpp hmm. dëgg moo ci gën gis nga euh, euh, élèves yi nga xam ne da leen ni léegi da ngeen di jàng ci télé. Mhm. d'abord télé yi ci kër yi. gis nga comment ça se passe. Mhm. et tu sais très bien que programme yi dañ koy suivre en fonction de leur appétit. Mhm. ensuite que xale yi environnement scolaire bi ci kër gi c'est à étudier. parce que kër yi yëpp amuñu environnement scolaire. am na mhm. kër yoo xam ne ben ñi fay jàng ñaar la ñett ñeneen ñi jànguñu. Mhm. donc boo waxee nit voilà télé bii mooy teg lii pour que xele yooyu suivre. Mhm. perturbation la ñuy am loolu lu wóor la. ensuite les radios ou autres là mais concentration pour un élève dans une classe pendant deux heures de temps bokkul ak li nga mën a am ci concentration élève buy déglu rajo wala buy déglu télé loolu kay ñun xam nañ ko. ensuite ñuy joxe xale yi mais xale yi boo leen joxee fascicule aussi ko ku leen encadré expliqué leen li nekk ci fascicule bi mhm. mais loolu ñu mel ni journal bu ñu for ci mbedd mi rek mhm. donc gis nga situation bi fu mu toll nii lu metti la wante nag def ci lu metti loo xam ne kenn teguñu ko lu dul suñu borom dañ mhm. ko jàppe noonu kenn teguñu ko lu dul suñu borom kon nag en tant que humain il faut ñu essayer xool xam ci mbir mi situation yi nak lañ ci mën a euh, trouver ay solution solution yooyu nag mais quoi qu'on buñ ko xalaatul ci la euh, ci ci lañ dul comprendre parce que quoi qu'on dise mënuñu aussi croiser les bras di xool ne du ñu def dara déedéet mhm. li am solo it tax loolu waruñu ko def mooy que ay nit la nit nag koo gisee ñun ne la nit parce que da nga am xel xel boobu la ñu bëgg a jëfandikoo ba xool naka la ñuy limiter les dégâts ñu fàttali ko aussi que ñun rek nekk ñu dans cette situation mhm. que tout le monde tous les états du monde sont dans cette situation li nga xam ne aussi def na dal dal keneen dal ñeneen mais boo ciy réfléchir da ngay sóoraale ñooñu xool ni ñoo est ce que naka la ñuy defee pour mm-hmm. génn ci parce que solution bi mun na jóge Sénégal mun na jóge beneen pays africain mais ñu gis ni lii mun na dal liñ dul nangu kay mooy ñu xool solution à la française ou à l'américaine mm-hmm. alors que ñu moyen yu ñu am ba mën a def seen solution yooyu ñun amuñu moyen yooyu mais dans la sous-région comme c'est une affaire mondial mhm. ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkee niveau de développement naka la ñu régler seen problème ñun mën nañ gis loolu mhm. ñoom tamit Sénégal mun na fekk ñun ñoo trouver la meilleure formule pour que ñu génn ci mais de toute façon comme njiitu réew mi en conseil des ministres def ci joxe directive yu clair jàpp naa ni dinañ demaat avec suñuy jëwriñ suñuy suñu suñu comment dirais-je ministre de tutelle mais bu ko defee en bon sénégalais patriotes comme je l'ai dit. Mhm. mais dinañ mën a trouver peut ban voie la ñuy ci situation bi actuellement. Mhm. Saourou euh, Sène jamono yële dégg nañu sa ay kàddu euh, te dafa mel ni yow amoo woon yaakaar ci année bi ñu mën kaa sauver maanaam mu bañ a nekk année blanche ndax ba léegi boobu gis-gis nga am. Euh, noonu waxewu ma ko exactement ni nga ko waxee. dama ni hmm. couleur année bi mu ngi dépendre rek ci nu ñu maîtriser virus bi. d'accord parce que nag aussi coow li lu mu bëri bëri li ñuy wax ni yëpp bu dee virus bi def fi toog ba juin juillet août ñaanuma ko yàlla. Hmm. mais loolu kenn waxatul année waxu virus la ñuy wax bu boobaa. mais bu dee nag yàlla jàppale nañ ñu balaa ñuy dugg koor bi te maa ngi mm. koy ñaan yàlla bu baax mm. balaa ñuy dugg koor bi virus bi génn fi mais mun nañu toog waxtaan mais en général on dit que balaa nga ne naam ne fa waaye quelle soit la situation bu dee virus bi malheureusement pour le monde dafa résister encore continuer mais njàng ak leneen ak leneen yëpp day tagga tembe à mm. partir de ce moment mais kenn du ci progresser d'accord kon kenn dootul waxati waxu année bi euh, léegi ah, ci examen yi am na itam ñoo xam ne ñu ngi proposé ak lu mën a am ñu dem ci examen yi euh, def ko ci ay classe yoo xam ne xëy na nit ñi dañuy sorante benn mètre ni ñu ko diglee ci jamono ji ñoo nekk euh, di xeex ak coronavirus loolu ci sa xalaat mën naa nekk bu nu gisee nii xëy na yenn bërëb ay professeur ak i maître yu doy amu fa même loolu limite la rek xam nga wax naa la ko sànq balaa nga ne naam ne fa. Mhm. gis nga bu ñu waxee nañ def les examens yi def les limites un mètre un mètre pour élèves yi mais problème bi mooy li tax nga def loolu mooy bañ élèves yi tase wala ñu lante mais ñoom bu ñu génnee ci classe bi <laughs> mais dañuy regrouper wu c'est des enfants mënuñu mesurer yenn yi mm. donc yooyu doo ko a contrôler de sorte que encore une fois de plus le, le moment n'est pas pour le moment de dire voilà comment vont se passer les examens le mmh. moment c'est de dire qu'est-ce qu'il faut pour que les enfants ne désapprennent pas premièrement deuxième chose comment on peut leur faire parvenir les éléments pédagogiques mmh. les enseignements apprentissages le temps que cette situation-là cesse bu jeexee nag incha allahu rabbi mais dinañ mënu toog waxtaan xool quelle est la meilleure formule. Mm. d' pour continuer pour réorganiser la année scolaire. quelle est la meilleure formule pour que les enseignements apprentissages, euh, les programmes soient révisés dans une certaine mesure, quelle est la meilleure formule maintenant pour faire les examens et le moment opportun durant lequel moment ci la ñu mën a def examen yooyu. Mm-hmm. yéen ca SAEMS da ngeen am euh, idée bu particulière boo xam ni xëy na jàpp ngeen ne bu nu ko doxalee yëf yi dana mën a aw yoon. waaw gis-gis bi moom wax nañ ko ñun dañ jàpp ni d'abord il faut que d'abord dans ces moment particuliers ñu am une forte solidarité nationale autour mm. du gouvernement ça c'est c'est c'est notre point de vue il faut ñun ñëpp ñu ànd xel yi ñëpp nekk benn xol yi ànd parce que ci foofu rek la ñu mën a ñaan suñu borom mu may ñu d'abord mm. et ensuite ñu respecter les mesures d'hygiène yi nga xam ne état bi établir na ko ensuite troisième chose maintenant ñun en tant que secteur de l'éducation lu ci waay xam baaxee ko élèves yi mu def ko te loolu moo tax ñu gis ni déjà professeurs yi jël nañ seeni responsabilité organiser seen classe surtout d'examen en groupe WhatsApp sauf que ñenn ñi mënul ñu leen jot ñooñu ñu mënul jot nag parce qu'ils sont dans le monde rural na ci état def loxoom ci ay fascicule suñu mbokku étudiants yi suñu mbokku jàngalekat yi nekk foofu dans le monde rural ñu am une certaine organisation bu leen permettre à ce que ku nekk seen kër mais am na ay élèves yu fa nekk nga jàppale leen na nekk une solidarité nationale réelle mhm. aussi bien au niveau macro qu'au niveau micro mhm. et ensuite maintenant loolu travail boobu yëpp bu ñu ko defee mais xëy na yàlla suñu borom mën nañu may d'ici ramadan bi mais covid bi jóge fi virus bi joge fi dégg naa ay d'ailleurs ay spécialistes euh, je sais pas si c'est c'est des c'est des c'est des prédicateurs ñu wax ni léegi mu jóge fi ñu ngi ñaan yàlla bu baax a baax a baax vraiment mu jóge fi mhm. mais à partir de ce moment dinañ mën a xool maintenant naka la ñuy defaat pour réorganiser l'année scolaire jërëjëf Saourou Sène amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu réew mi fàttali ni yow yaay secrétaire général bu SAEMS waaw mais maa ngi leen di jaajëfal ci invitation bi di encore euh, rafetlu li ngeen di def wax ni lekk ñun ñu ngi toujours disponible pour à chaque fois que de besoin indi ay éléments yoo xam ne xëy na mën nañ jëriñ jërëjëf jërë ngeen jëf merci Aliou voilà